d'accord euh, sànq imam wax nga euh, ci euh, benn député boo xam ne àdduna ci benn mbir boo xam ne kàddu la woon mm-hmm. boo xam ne parti ba mu bokk dafa sànni woon mm-hmm. sénégalais yi bàyyi ci xel amoon ci yaakaar mm-hmm. ne bu ñu jotee ci la ñuy wut dinañu jëmmal kàddu yooyu muy Birame Souleye Diop justement wàllu cumul de fonction bi Euh, ñoom waxoon nañu ne Ousmane Sonko sax waxoon na ni bés bu nekkee président mu ngi ko wax avant élection 2019 yi ne bu nekkee président dina introduire benn projet de loi euh, boo xam ne dina euh, dinañu supprimer totalement cumul de fonction dootul amati. Mmh. Biram Souleye Diop effectivement wax na ko nee na amul benn loi boo xam ne jamono ji da koy tere te war nañ ko mën a def est-ce que foofu aussi ñu bëri nee nañu mbir mi nekkatul question de de morale. parce que kàddu lañu ñu joxe war nañ ko mën a respecter mais question de leadership la mm-hmm. bu seen leader waxee mm-hmm. euh, ñi nga xam ne ñoo ci topp war nañu mën a jëfee mm-hmm. euh, yow noonu nga ko gisee wala waaw xam nga man yaakaar naa problème mu cumul euh, la ma ca waxoon leer xëy na lii may wax ni répétition mooy man dama gëm ni réew mi li fi nekk ci ay sénégalais nekk fi ci ay cadre benn nit ci réew mi waratu la ñaari poste di ko doxal te ñeneen ñi ne fi loolu man sama xel nanguwu ko te man dama gëm ni dañ ko war a dakkal. bu dee post électif nag maanaam askan wi. tànn la poste bu mu mën a doon man damaa gëm ni bu dee maire nga. Mhm. doy na sëkk ci nga war a nekk maire. parce que responsabilité maire doy na sëkk ci ak nit. koo xam da ngaa war a gere maire yi gérer sa njaboot. jàppoo ne maire mooy gën a mën a représenter. askan wi askanam ci assemblée. non dañuy ñëw rek Abdou Khadre xam nga. Mhm. bëgg rek ñu ñu benn benn waxtaan wi. Mhm. parce que coow li bari na ci. waaye man damaa bokk ci ñi nga man du man duma dem ci pression man toujours damay wax li ma xalaat. ak li ma gëm. dinaa ñëw ci déclaration bi biram su lay def mais dama lay wax ci cadre cumul li ma ci gëm. Mm. cumul dama cee bokk ak président Ousmane Sonko ko xalaat. te loolu sax bokk ma moom moo ma ci fekk si parce que man bi ma koy gëm moom xaw ma gëm na comme déet. Mm. man damaa gëm ni réew mi fi mu toll nii li fi nekk ci ay cadre ak ay universitaire jaadootul benn nit du ñaari post kenn ku ci ne war ngaa mën a yor beneen jox sa moroom muy sa nawle nga jox ko mu yor beneen bu dee mair nga nga nekk mair wut adjoint ngeen continuer doxal. parce que maire responsabilité bu ko gën a rëy amul ndax da ngaa nekk ci gox nga taxaw ni jox leen ma ma doxal ñu wóolu la jox la kii nekk député dem nekki député yem assemblée parce que assemblée liggéey ba fa nekk boo ko xamee doy na sëkk ci ab liggéey léegi nag li indi lii la ñuy war a jàngat parce que kuy jàngat tamit. boo effacé li tax situation bii ah. waa Pastef di ko dund mooy yow naroo wax sénégalais yi dëgg Pastef man li may wax nii yàlla laa ciy jël seede dañoo waxoon lu leer ni képp koo xam ne def nañ la maire nga dinañ la jël pour nga am chance pour gagner comme kaawu biram Souleye bi ñu koy jël Thiès mhm. parce que boo nekkee maire kat yow yaa ëpp chance gagner ki nga xam ne nekkul maire parce que yow yaa ngi maîtriser sa commune yaa ngi maîtriser électoral bi. xam nañ sa poids électoral. sa poids mm-hmm. électoral. ci cadre boobu lañ jëlee Birame Souleye Diop mu dem nekk maire nekk député biram Souleye man maa dégg kenn nettaliwuma mu ni man damay démission dinaa démissionné dinaa tànn benn. Mm-hmm. Birame Souleye musul wax nii du tànn benn dafa wax ni man dinaa démissionné mais kañ laa koy def ak naka laa koy defee loolu man maa koy seet te loolu ku naa fekkul laa wax tey wax te yàlla rek tax xam ne xel nangu na ko biram bu ne woon man kat bi la Ousmane Sonko waxoon defuma ko te loolu Ousmane Sonko daf ko wax dañ ko war a def parce que encore une fois li tax ñu war ko def Pastef dama koy wax amuñu xaalis buñ jox nit ñi yaa ngi dégg. Mhm. nit ñi lenn rek lañ leen gëmee mooy kàddu te kàddu googu bis buñ def daf la ba mu instable. ñu bari ñi leen gëmoon dañuy wëlbatiku nekk seeni adversaire commencé par man man xaw ma ñeme man sama bopp laa xam man bis bu ma xamee ne Ousmane Sonko day wax te du ko def man pare naa pour nekk adversaire am moo tax ma rafet njortu ni Pastef du ñu caaxaanee loolu. ci li ma jàpp mais ñaaw amul ci. non lay bu ne amul benn loi bu koy tere. non wax na dëgg amul benn loi bu koy tere. effectivement ñëw amul loi bu koy tere mbir mi nekkul ci ay loi. Mm-hmm. kàddu moo ëpp doole ci réew mi loi. moral moo ëpp doole ci réew mi loi ñun waxi loi kenn waxu ko fi mais le fait que mu nekk kàddu nga yëkkati ko ba askan wi dégg ko da ko war a respecter réew mi kenn affaire loi fi tënku fi kenn réew mi ay loi loi yi ñu ko yor ñu leen neex lañ koy manipuler Ousmane ah, Sonko ñi ko topp mhm. toppee wuñ ko affaire loi kàddu lañ ko toppee parce ah, que bindul fenn ci kii ma daaneel rek waxuma waxi loi réew mi Ousmane Sonko la ñi ko topp mm. kàddoom gu stable ak lim ñuy wax ñu gis ni amul wuute loolu la ko nit ñi toppee mais toppee wuñ ko affaire loi yaa ngi dégg kon Ousmane ko kàddoom boobu képp ku ko bëgg dimbali laa wax de te naxoo ko donc ko war a fexe mu fexe ba mu stable. Mhm. Birame Souleye it loolu la comprendre parce que man dépassé naa toog di waxal nit lu ma gëmul parce que man kenn yoru sama dépense man biram dama ko xam ma wax la nag loo xamul loo xamul Abdou Khadre Birame Souleye Ousmane Sonko gënu koo jub. man Imaam Dramé maa la ko wax parce que man biram laa gën a miin sax moom laa gën a jaxasool ci waxtaan que Ousmane nit ku jub la ma wax la loolu nit la koo xam ne lu mu gëmul du la ko wax bu asamaan si doon daanu it lim gëm lay wax Sénégal nag ñu genre nit bu mel noonu Sénégal xam nga kan lañ xam mooy koo xam ni bu coow li baree nga taxaw ni layam layami wax nangam nangam mais biram moom lu mu gëmul du ko wax man loolu xam naa ko ci moom. man question bi yemuma ci ci ay réseaux sociaux damaa dem ba toog ak moom. mu wax ma dégg. mu ni ma imaam man la ma gëmoon tey laa ko sa tey laa ko gën a gëm damay bàyyi benn poste bi waaye kañ laa koy bàyyi ak naka laa koy bàyyee loolu maa maa ciy jël samay responsabilité kenn du ma ci force te effectivement loolu d'accord naa ci ak moom. kañ laa koy bàyyi bi est-ce que question boobu tamit yell na. bañ a yéene ah, Abdou jamono bi nga yoree ñaari poste yi kay ñaari fonction yi maire mënoo jël si saa si war nga mën a déedéet euh, loolu boo loolu loolu loolu loolu ku ko bëgg a def mooy xamoo li xew dañuy waxtaan Abdou Khadre mhm. Birame Souleye kenn falu ko waa Thiès ñoo ko fal mu demoon waxtaan ak ay mag ay kilifa mhm. ni leen damaa bëgg nekk seen maire kon bu demee bay bàyyi mairie boobu war naa delluwaat ci ñoom wax leen li tax mu koy bàyyi mhm. bu fekkee dañ ko fal député mu war ko bàyyi war naa delluwaat ci waa Thiès ci basam wax leen li tax mu koy bàyyi buñ naxante politique lañu nekk doo gañe lu toll ni maire xëy sànni ko biram kàddoom musta musta musta jëm ci layam-layam yi dafa musa wax ni da koy bàyyi loolu wax na ko te man loolu laa gëm biram Souleye bi ma xam damaa jàpp ne li mu wax dina ko def ba koroog mooy gis la contraire mais dafa am loo xam ni Sénégal dañ ko dañ ko meree politiciens yëpp mooy arrogance xam senegal Sénégal dañoo miin politiciens yëpp bu bu ñuy wut bu ñu demee ba am dañuy am dañuy arrogance. Mhm. moo tax biram bi mu waxee ñu bugg ko dugal ci loo boobu maanaam jàpp ni kii dafa arrogant mais man biram bi ma xam man billaahi yàlla rek moo tax may wax te alxuraan dafa am lu mu wax loo xam ni dafa baax di ko fàttali alxuraan daf ñuy wax ni wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu yàlla dani bu leen di nëbb seede parce que bu ngeen nëbbee seede loolu bàkkaaru xol la yaa ngi dégg alxuraan waxat ni wa ma shahidna illa bi ma alim naa bul seede lu dul li nga xam man i man du ma seede lu dul li ma fekke Birame Souleye bu dee loyauté laa la wax de ak gëm projet Ousmane Sonko ku ko gën a gëm amul fii ci ñi wër Sonko li la koy wan événement mars yi bi mu amee moom lañ jëkka a jàpp moom lañ njëkk a jàpp mook jabaram boobu ana ñeneen ñi doon wax naan dafa bëgg a trahir Ousmane Sonko ñooñ fuñ nekkoon est-ce que xam nga ni Birame ba léegi soxnaam day dem di signé ji day dem di signé ji ci euh, contrôle judiciaire mhm. yaa ngi il faut nit ñi ñu bañ a dem ci yàkkamti mu des nag militants yi koy critiquer am nañ ci droit parce que xam nga loolu lan lay wane day wane ni réew mi wax waxeet dafiy jeex day wane ni réew mi falu naa falu naa nekk buur dafay jeex moo tax li am ni lu naturel la parce que Pastef ñoom ñoo jaay nit ñi ñoom ñooy xam nga biram mii ci moom laa mos a dégg mu ni Ousmane Sonko moo taal xel yi moom moo ko wax comme Ousmane Sonko moo taal xel yi ne xel yi dafa taal taalu na kenn mënatul a nax nit ñi yaa ngi dégg kon ñoom ñëpp damaa gëm ni kenn ku ci ne ci sa rôle nga nekk parce que damaa gëm man garde foofu laa gëm ah. Sonko tey même bu yoroon réew mi waruñu ko bàyyi moom kese ak clan ñu nekk ci li leen neex dañoo war a am société civile bu fort am ay activistes yu dëgër. di ko fàttali la mu doon wax démb pour mu man koo def waaye loyauté biram Souleye laay wax ak kàddoom bu stable man aw ma ci weerante ñeneen ñi ne wóoruñu ma parce que fréquenté wu ma leen mais moom fréquenté naa ko xam naa ko te nit la koo xam ni du nit ku gëm pouvoir ma wax la loolu ci moom parce man damay wax ak nit ki gis nga tey ji post bi ñu ko jox ni muy euh, groupe parlement groupe la parlementaire euh, président groupe parlementaire groupe président groupe parlementaire bu yeewee askan bi man gëm naa ni moog delluwaat impôt et domaine ngay la yemale parce que nit ki xam naa ko man nag nit li ma xam ci yow rek laay wax yaa ngi dégg kon il faut ñu dalal dalal xelu nit ñi ñu xam ni fii dara du fi xew Pastef li ñu wax ak nit ñi bu dee nii du ñuy dof te gëm naa du ñuy dof dinañ ko def parce que buñ ko deful nit ñi kenn moomu leen yow xam nga ni man waa Pastef moomuñu ma yow boo ma nee jàkk xam ni man Pastef tey bis buñ dérapé woon barke Cheikhou Tidiane laa lay wax man waxuma keneen man damay xëy tas bi capable naa ko am naa fit bi yow xam nga loolu ñun ànduñu ci ay naxante nii yow tamit ñun combat bi ay bakkan a ci rot ay bakkan kon naxante amu ci xëy na am na ñoom ñu ngi ci duggee naxante mais am na ñoom dugguñu ci pour naxante am na ñoom dañ ciy dugg pour gëm ni réew mi mën nañ koo soppi man boo gisee nangu maa jënd carte membre damaa taxaw rek ci el bi nii toog di xaar xam nga pour la pour mën a moom sama bopp pour mën a équilibre su ma gisee loo xam ne njariñu Sénégal ma taxaw doonte Pastef ànduñu ci man ma taxaw fa njariñu Sénégal nekk. d'accord kon côté boobu dama ci dalal xelu Sénégal yëpp. gëm ni xaw ma keneen mais Birame Souleye li mu wax ak sénégalais dina ko def. kañ la koy def ak naka la koy defee nag loolu moom moo koy jëlal boppam parce que responsabilité la du kenn moo ko koy imposer loolu laa ànd ak moom. d'accord ah. mais euh, certainement sénégalais ñu ngi ko ci xaar ndax kàddu jamono ji dafa nekk loo xam ne euh, askan wi yëpp dañ ci dañ ci jafandu. te euh, pratiquement loolu d'accord naa ci Abdou Khadre askan wi nañ taxaw fi ñu taxaw mhm. parce que waruñoo bàyyi benn politicien di fi jël engagement te doo ko respecté mhm. parce que ku ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw mhm. Macky Sall la ngi nii ba mu jëlee réew mi ba tey lu mu ñu wax tey bu subaa mu wax le contraire kon kay li askan wi di def d'accord naa ci d'accord waaye tamit askan wi tamit bu njàkkamti parce que nag on est en politique mënoo nekk ci contexte bu toll nii di gagner maire yi xëy rek di ko sànni di nga ko def façon bi nga koy defee ak naka nga koy defee kooku yow yaa ci jël say responsabilité ak xool ban moment moo baax parce que yow yaa ngi ci digg année bi année bi jeexagul mairie tey bu ñu la falee sax dafa am budget bu ñu lay votel dangay am programme boo xam da koy doxal bu xëy na boo ko doxalee ba année bi jeex nga soog a xam yan stratégie ngay def pour mën a joxe mairie bi kon lu yomb la buñ ci débat boo xam ni bu mu ñu tardeel hmm. tey les vrais débats du ay affaire cumul ñun affaire cumul liñ ci gëm wax nañ ko te loolu yaakaar naa cadre Pastef yëpp loolu lañ gëm Ousmane ko wax na ci mu leer nañ yaa ngi dégg réew mi tey fi mu toll li fi nekk ci ay cadre ñoo nangu benn poste kenn kenn ni di occupé fukki post loolu Sénégal yëpp xam nañ ko du débat les vrais débats du loolu nañ wax ci les vrais débats ba